إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد عباد الله mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhanahu wa taala di seede ne moom dong moo yeyoo ñu koy jaamu ñu ngi sant suñu boroom di seede ne yonent yàlla ba mu yónni woon ci ñun ci moom dong lañu war a roye nu ñuy jaamoo suñu boroom gannaaw loolu mbokk jullit ñu ngi leen di ndokkeel ci jaamu yàlla gu màgg gi ñu jóge ca mooy jaamu yàlla tabaski ak la ca aju ca julli ga ñuy julli ak ñaan ya ñuy ñaan ak xar ya ñu doon jokkoo suñ digganteeg suñu boroom yal nañu yàlla boole nangul lépp loolu mbokk mi ngi lënkaloog benn jaamu yàlla boo xam ne ponk la ci ponk lislaam ca mooy li nga xam ne mooy aj màkka aj màkka googu nga xam ne jeex na ca suñu borom li mu dogal daanika lu néew a néew a néew ci jullit ñi ñoo dem boo xoolee seeni lim dafa dajala chaque matul 3 millions ci biir un milliard et demi de musulmans kon loolu lu néew lañu allahuma mbokk julit suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam day benn aj dong la aj ci lislaam aj googee ñu tudde ko ajug tàggatoo waaye tàggatoo boobee day ba mu ko ajee santoon na ñëkk waroon di téemi di téeméeri junni ak ñeenti téeméer ci ay julit santoon na leen ne leen bu ñu demee nañ jottali la nga xam ne moom la leen nar a wax su ko defee tey jii ñee nga xam ne ñoo demoon Makka daje nañoo ak imaam ca Arafat imaam ba xutba na leen fa ab xutba loolee bu doon ña ña koy dégg ñépp dégg nañu làmmiñu arab waroon nañu fu ñu dem ci goxi àdduna bi jottali leen xutbab imaam ba fa lillahi alhamdu mooy tey jii foo mën a nekk ci kaw suuf bu la neexee di déglu xutba boobee imam di xutba ca Arafat di ko gën a dégg ña teew biir Arafat di jàkkaarloog imam ba ca fekk quatre-vingt-dix pour cent ñoom sax gisuñu imam ba loolu xéewalug yàlla la waaye it mbokk jullit bokk na ci xéewalu yàlla ba tey ñun day fekke wu ñu ajog yonent bi ba mu ajeeg léegi def na junni at ak ñeenti téeméer waaye waxam joojee mu waxoon ak saxaabaam ya wattu nañ ko ci seen dënn ya di ko jottalente di ko jottalente ba baa yàlla ubbil ñu xéewalug téere ñu daal di koy saxal ci téere yi di ko fàttalente ba ilaa yawmi diin looloo tax sunu xutba tey bii mi ngi nar a jëm ci fàttali ci at googu nga xam ne mooy ajog tàggatoo ga nan la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tàggatoo woon ak xeet bi lu jiitu mooy keroog xutba na leen fa ay xutba ba ca gën a màgg mooy ba mu xutba keroog yow mu arafa doonte ne xutba na leen ca bisu tabaski ba ak lenn ci yaamu tashriq waaye bokk na lu mu waxoon sahaaba ya ngalawaay déglu leen li ma leen di wax bu baax ndax kat mën na am dootuma dajeeti ak yéen mukk ci place bi di place su acc loolee na mu ko waxe woon sallallahu alayhi wa sallam gis nañ ne ñetti weer la ca teg daal di wuy ji boroomam sallallahu alayhi wa sallam loolu nag mbokk kon day tax mbir moomii yonent bi waxoon ngallaawaay xamal ne waxulu ko woon ak saxaaba ya mi ngi ko doon wax ak ñun ñii ak ñi ñëw ba ilaa yawmi diin keroog la yàlla wàcc ci moom ab aaya aaya boobee nga xam ne nii yàgg ngeen koo dégg. ca waarakat waaratekat yi suñu borom ne bis na ki tey day matal naa la nga xam ne mooy seen diine diine ji mat na sëkk amul lenn lu ma leen di tegeti naan leen def leen lii wala bàyyi leen lii mottali naa samay xéewal ci yéen ca mbokk jullit xamal ni xéewal gi gën a rëy gu doomu aadama di dajeeg ci kaw suuf mooy yàlla boole ko ci jullit ñi yal nañu yàlla boole ca ña faatoo xéewal googee gannaaw ba it mu ne gërëm naa islaam bii nekk seen diine kon lan la yàlla gërëm ci diine mooy naka yonent bi doon dunde ak i saxaabaam képp ku ko wàññi defoo lu yàlla gërëm képp ku ca yokk defoo lu yàlla gërëm loolee mbokk dañuy gis ni suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam borom yërmande ju màgg jooje suñu borom yàlla ne ku am ñeewante la ku am yërmande ci jullit ñi la gis nañu ne lam jëkk bàyyiloo xel jullit ñi jëkk leen koo dénk ngalla way ñu wéetal seen borom jalla waala waaye mbokk loolee nga xam ne mooy kaddu wéetal yàlla di kaddu tawxiid di laa ilaha illa allah nga xam ne tey jullit ñi dañ koy wax guddi di ko wax bëccëg am na ñoo xam ne jàpp nañu seen diine yépp sax mooy di wax rek laa ilaha illa allah waaye malheureusement mbokk jullit la ëpp ci jullit ñi comprendre ñu dégguñu lan mooy laa ilaha illa allah looloo tax boo xoolee ci seeni waxin ak seeni jëfin fu ñu waxe rek daa di nekk ci juuyoo ak laa ilaha illallah fu ñu jëfee rek nekk juuyoo ak laa ilaha illallah mbokk laa ilaha illallah mooy ngay yëg ci sa xol ne kenn yowul ñu koy jaamu ku dul yàlla xam ne yàlla kese mooy aji bind keneen ku dul yàlla mbindaa fanu yàlla la yàlla kese mooy aji wërsëgal keneen ku dul yàlla daa aajowoo moom ci boppam yàlla wërsëgal ko yàlla rek mooy aji not lépp lu ko neex def keneen ku dul moom yàlla jalla wa ala da koo not di def ca moom la ko neex lii mbokk day tax ba jullit bi gëm lii mooy kii mën a xam wéetal boroomam suñu boroom mu ne ay yéen nit ñi man yàlla maa leen bind man yàlla maa leen di wërsëgal man yàlla maa leen di rey maa leen nar a dekkal waaw ñi ngeen di woo ni wax yàlla ak ndax am na ci kenn ci ñoom kuy def lu mel ni tontu la mbokk moom mooy déedéet suñu borom daal di koy fedd li ne yéen ñii woo keneen ku dul yàlla ay yaa cheikh diw yàlla na la sëñ diw defal nangam wóor na sëñ diw loolee mbokk ñooñu ngeen di jiiñ di leen woo ci du yàlla day la ngeen di wax ñoom dégguñu ko wallahi yow mi toog fii naan yàlla na la la muhammad sallallahu alayhi wa sallam fay ya muhammad sallallahu alayhi wa sallam déggul sa wax ji xamul ki ngay waxal munu ci dara waxumaa ne keneen ku dul moom suñu borom nag ne même buñ ko déggoon it munuñu leen wuyu ci li ngeen di wax amul kenn kuy ñaan amul kenn kuy xettiliku di xettilikoo keneen ku dul yàlla kookee suñu borom mu ne waxumaa déggu ko waaye bu ko déggoon it munu ci dara ñetteel ba nag suñu borom yàlla ne yowmal qiyaama bu ngeen dajee daañ leen weddi ci bokkaale yi ngeen doon bokkaale aka bëri ay yeneent aka bëri ay sëriñ yoo xam ne keroog yowmal qiyaama daañu am problème bu rëy ak doomu aadama yi nga xam ne fu seen oto di këppoo ñu ne yaa cheikh diw fu ñuy bëgg a daanoo yaa sëriñ diw ku ñuy ñaanal yàlla na la cheikh diw sàmm yàlla na la cheikh diw aar wóor na suñ diw heure bu ñu dajee ak ñoom yowmal qiyaama daañu nekk ci combat bu rëy moom la borom bi di wax naan wa yowma alqiyamati yakfuruuna bi shirkikum wala yunabbi'uka mislu xabiir kenn nag mun laa xamal naka la yowma alqiyaama di demee ci ku mel ne suñu borom bi nga xam ni mooy ki ñàkku kumpa ci lépp loo xam ne nii moom la jaam yi di jëfe e yéen mbokk jurit yi ngan la way xam leen ne bokk na keroog ci xutba bu màgg boobee suñu yonent sallallahu alayhi wa sallam loo xam ne insisté na ca lool bàyyi loo ci xel nit ñi lool ca mooy doomu aadama yi ñoo yem ci kanamu borom bi doomu aadama yi ñépp ñoo bokk yem ni ñu yàlla bindee ku ne am ñaari loxo ñaari bët ñaari tànk ilaaxiri ñun ñoo yem moo bokk ci koo xamee ni nii day mën naa yor turu julit waaye comprendrewul diinul islaam mooy képp koo xam ne day xeeb doomu aadama ngiree der bii mu yor bokkul ak sama der képp koo xam ne day xeeb doomu aadama ngir mankat li may lakk bokkul ak li muy lakk képp kuy xeeb doomu aadama ne moom kat famille bi mu cosaanoo bokkul ak famille bu ma cosaanoo képp koo xam ne yaa ngi xeeb doomu aadama ci loolu su dee nee nga jullit nga it comprendre loolu la nga xam ne moom mooy lislaam mbokk yonent bi alayhi salaam ci xutbaam bu màgg boobu waxoon na nit ñi ay yéen nit ñi xam leen ne seen borom benn la bi ngeen war a jaamu waaye seen baay benn la muy aadama alayhi salaam mbokk du ne arab yi dañoo am seen maam nit ñi ñuul ñu am seen maam ah tukulóor yi am seen maam bambar yi am seen maam déedéet mbokk jullit loolu bi mu fi xewee yàggul ñun ñépp ñoo bokk benn maam ñun ñépp ñoo bokk benn borom bu ñu bind suñu borom nag mu ne teqale naa leen ñuulal ñii teqale naa leen ñii di lakk chinois ñii di lakk anglais loolee ngir mu dimbali leen rekk la te tey jii da ngay gis laajal sa mbokki muudi muudi yi da nga naan cëpp New York xamoo fa kenn waaye boo nee ndax amul ay sénégalais bañ woon na nga ñëw na sëñ bi na nga def mu ne la maa ngi fi rek day mel ne asamaan buñ tegoon sa kaw wàcce ko mi ngi noonu da ngeen daal di nekk ay doomi ndey loolu kon moo tax suñu borom séparé ñu waaye firiwul ni kenn daa gën moroomam ngir cosaan ba nga xam ne moom la cosaanoo loolee mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax gannaaw ba bokk na lu mu bàyyiloo xel ci xutbaam bu mag boobee mooy ay yéen nit ñi xam leen ni seen deret day ak seen alal ak seeni der araam na ngeen di xotti war ma loolu comme ni ma araama ñuy def bakkaar ci makka ci bisu tabaski ci weerul xaj nga xam ne loolu musiba la yu tegaloo looloo tax ba yow mbokk jullit bu dara jar ci àdduna nga jóg ne da ngay lekk sa alalu mbokk jullit ci tegoo ko ci yoon bu dara jóg ci àdduna nga jóg ne da ngay jël arme di dem ngir tuur sa deretu mbokk jullit waaye it ñu moytu seen kemtalal kattan lii di yàq deru mbokk jullit mbokk lii da ngay gis ne lu yonent bi alayhi salaatu wasalaam moytuloo woon nit ñi la waxoon nañu yit ne la nga xamee ne mooy téereb yàlla bi mooy alqisaas qisaas boobu mooy lan mooy nit ki jalgati nañ ko def lam jalgati ki ñëw fekk doomu aadama mu tooñ ko rey ko ku mel ni àqam mooy dañ ko war a rey ki ñëw fuq bët doomu aadama dañoo war a fuq bëtam loolee yàlla def ko ngir benn kii xam ne su ma reyee dañ may rey ku mel noonu loolu mën na ko delloo mu bañ a rey waaye it ñii nga xam ne dañ leen a reyal su dee buur jàpp na ka rey rey ko mën na yem foofu waaye bu dul looloo mën na am kenn fele ñëw rey ko keneen ñëw rey ko keneen ñëw rey ko looloo tax suñu borom ne ngeen tëral luwaa yoo xamee ne nii luwaa yi def ñu dem ba gëstu ne juumul waaye moo ko tey def ko lu mel noonu nañ ko ko def loolu mooy mbokk mooy alqisaas bi nga xamee ne tey tubaab bii daa di boole nañ ko ci ak njaal pour ñoom loolu barbari la mbokk loolu la ëpp ci suñu état yi topp leen ca waaye ngal la waaye nañu xam ne loolu ak kéeféer la képp koo xamee ni nii sa pexe sa xam-xam may na la nga mën a wax wala mën a def ay jéego nañu xam ne mbokk loolu suñu borom bam ñu koy tëral farata la ci suñu diina ji ca it loolu dong moo mën a wàññi la nga xam ne agression bi nga xam ne moo am ci suñu réew wala beneen réew ngan la waayu mbokk nañu xam ne yeneen ki boobu sallallahu alayhi wa sallam moytala woon nañu nee na xam leen ne day cheytaane ah rawatina ci dëkk li ñuy tuddee Arabie saoudite rek mooy jasiratul arab ak li ko wër nee na moom xam na ne fii dootuñu ko fi jaamooti waaye nag am na beneen combat boo xam ne du ci tàyyi mukk mooy fexe ba jaxase diggante doomu aadama yi loolee mbokk da ngay gis bu ñu xoolee tey le monde arabe bi nga xamee ne ressources yi gën a rëy ci àdduna bi muy pétrole ak yu bari ci ay gaz ci seen dëkk yi la nekk waaye teewul gis ngeen nit ñi teqalikoo ay état yu dul jeex ba tey amuñu benn kattan ca la nga xamee ne nii mooy dox ci biir àdduna bi loolee mbokk ci seytaane la jógee waaye nga delluwaati ci biir jullit ñi seytaane fexe ne teqale na leen ay mbooloo yu dul jeex ñee mbooloo sangam ñee mbooloo sangam ku nekk jàpp ni lii ma yor moo gën la nga yor ila axiri loolee mbokk da ngay gis ci seytaane la jógee loolee nag dara warulul mu réussir ca mooy lu dul bi nit ñi demee ba jàpp ne li fi yonent bi alayhi salatu wasalaam bàyyi woon day naam baax na waaye nag buñ ci njàmbaasoon lii day gën a baax kee njàmbaas dara jàpp ni lii moo gën kee njàmbaas jàpp ni lii moo gën mboolem fitne bu ñu dal loolu foofu la jóge loolu kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax mbokk yonent bi alayhi salatu wasalaam ci xutbaam bu màgg boobee mu xutba ñëw na dugg ci biir kër yi daa ji ne ay yéen góor ñi xam leen ne inna lakum ala nisaikum xaqa wa li nisaikum alaykum xaqa fattaqu llaha fi nisa xam leen ne ay yéen góor ñi yàlla day teg na ay aq yu leen seen soxna yu yoral waaye yii nit am nga aq yu ngeen yoral seeni soxna loolu it moo tax ba wareef la ci bépp julit mooy su ma demee bay dugg ci sëy man en tant que borom kër nan la yàlla santaane ma war ko yore samay soxna waaye yow soxna siit war ngaa bàyyi xel nan la yàlla santaane ma war koo nekk ak sama borom kër lii bu doon te ne ku nekk yaa ngi xalaat say devoir ay àq yi nga war a def avant ngay xalaat droit yi ñu la yoral kon jàmm de daan ñooy ci biir sëy yi waaye lan moo indi fitna ci sëy yi mooy ku nekk ci doomu aadama day xalaat la nga xam ne moom lañ ko yoral ci ay devoir yu ñu ko war a jox amma ay àqam mu fàtte ko loolu nag nañ ci bàyyi xel bu baax rawatina yéen góor ñi yonent bi sallallahu alayhi wa salatu wasalam daana wax ne jigéen ñi da ngeen leen a jël ci kóoluteg yàlla te mooy seeni waajur bañ la koo jox lañ laa wóolu woon un milliardaire yéeféer bu ñëwoon kenn du ko ko jox dagan na ngeen di ànd ak ñoom ci kaddug yàlla kon nekk leen ak ñoom ci njëkk suñu borom ne bari na lu ngeen bañit yàlla def te yiw wuri ca loolu mbokk du ne ab sëy munte ñàkk problème ah kay day am problème waaye suñu borom subhanahu wa taala ne problème boobu day boo ko muñee yàlla mën na wëlbati ci sëy bi defal la ci yiw bu baree baree bari fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu shay'an wa yaj'al allahu fihi xayran kasira mbokk yonent boobu sallallahu alayhi wa sallam moytuloo nañu ca dajeem bu màgg boobee lépp loo xam ne dafa jëm ci lekk ak riba loole mbokk nañu xam ne jullit du ko def lépp lu jëm ci faggoo alal foo xam ne daganul mbokk alal ju daganul day yàq la dagan la fa nekkoon loole ñu bàyyi ci xel bu baax bi mu paree sallallahu alayhi wa sallam ci discours am bu màgg boobee sahaaba yi nga xam ne dañ ko wëroon daf leen wax ne ay yéen sahaaba yi suñu dajee ca yàlla ëllëg day yàlla dana leen laaj ah ci samay mbir ma bu keroogee lu ngeen di tontu sahaaba yi na ko ah bu keroogee day daan tontu ne jottali nga ah la la yàlla yónni woon ci sag yonent jooxe nga la nga xam ne mooy kóolute ga la yàlla tegal say loxo laa yi nga biir la nga xam ne mooy sa xeet ah sa wareef bi la waroon yépp yow matal nga ko mbokk lii mooy la yonent bi alayhi salatu wasalaam laajoon sahaaba ya biñ ko laajee mu yëkkati baaraamam ba ju daal di teen kaw asamaan daal di ne allahuma ashhad ay yàlla seede li ñuy seede loolu it maa ngi lay xamal ne mbokk julit la yahud ya gëm nasaraan ya gëm ko julit yi gëm ko ñun ñëpp mooy yàlla ma nga ci kaw asamaan ba dem nañ nag ba am na ay xalaat yu cosaanoo woon ca Inde raam na ba dugg suñu biir réew ñoo xam ne dañ naan yàlla yàlla yàlla ngi fépp yàllay lépp mbokk loolee ak réer gu gën a bon ci réer yi loolu mooy réer googee yàlla mi ñuy jaamu ma nga ca kaw arasham ba ca kaw asamaanam ya yàlla mi ñuy jaamu ëllëg lañ koy gis yawmal qiyaama moo tax mu ne ay yàlla seedeel bi nga xamee ni nii seede na leen loolu mu daa dina nag ay yéen sahaaba yi dem leen fal yuballighi shahid minkum al ghaib ñi fekke sama wax ji dégg ko ngal la waaye jottali leen ko ñu ko déggul mbokk sahabatul kiram ñi ngi noonu yal na yàlla fayal la leen ca la ñu war seen fas ya war seen giléem ya di xeex di xeex di tasaare lislaam mi ngi noonu ba tey jii boo demoon fee ci Espagne fekk li ñu tudde Gibraltar loolu mi ngi tudde jabalu taarix mooy montagne de taarix kii di taarix ibnu Ziyad ba mu jiitee jullit ñi ñëw di jihaad ba jël tànki fasam teg ci océan Atlantique mu ne wallahi su ma xamoon ne am na ñu nekk sa gannaaw ci wéetaluñ yàlla danaa la xuus dem jottali leen lislaam loolee mbokk mooy booba seen xam-xam foofu la tolloon sahaaba yooyu kon mbokk ñoo jottali diine diine mooy lan mooy la fi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi woon loolu it mbokk ñi ngi woote war julit ñi di fàttali war xutba bu màgg boobee nga xam ni biñ demee en 1945 loo xam ne amagul téeméeri at la ñu tubaab bi di rey ak li ñuy tuddee en déclaration universelle des droits de l'homme jàpp ne ñoom ñoo indi civilisation ci kaw suuf jàpp ne ñoom ñoo yemele nit ñi fekk ne quatorze siècle jiitu loolu suñu yonente sallallahu alayhi wa sallam ci ndigalu boroomam mi ngi doon wax doomu aadama yi yéen ñëpp yéen a yem aq doomu aadama yéen ñëpp yéen a yem ay devoir yéen ñëpp yéen a bokk maam kenn warul lor sa moroom ku ne war naa xool looy jëriñ sa moroom loolee kon muy wane ne l'islam ni mu rawee civilisation bii ñi gars yi jàpp ne muy civilisation kenn xamul nu mu toll ngalla waay jullit ñi doyloo leen seen téere boroom doyloo leen seen yonente boroom xam ne la doon diine li ñu mën a jëriñ àdduna jëriñ ñu àllaaxira mooy la mu doon dund ak i saxaabaam leneen lu dul loolu fitna lay jur teqalee ñu leneen lu dul loolu coono la ñuy jural leneen lu dul loolu dañuy fàttali sunna amul benn xeet buy créer biddaa ci seen diine lu dul yàlla xaj leen ci sunna lu lu tol noonu loolu mbokk kon ñu bàyyi ci xel bu baax la ñuy mujj it mooy loolu lépp mooy yéen ñëpp lu ngeen bokk yëg mbokk tey ñi ngi dund le 16 août. ca fii nga xame ni ne mooy ndakaaru benn taw la ñu amagoon soo demoon ca àll ba mu gën faa garaaw ci gox yu bari baykat yi la ñu amoon ji nañ ko a ñax ma fa nekkoon yàqu na coono bari na loolee tax ba mbokk ñaan waa war nañ koo doubler ñaan taw bari nay façon jullit bu nekk mën na ko ñaan fu mu toll palaasu minbar bi palaasu ñaan taw la waaye nag la gën a mat ci loolu mooy jullit ñi daal di génn comme ni ñuy génn ci bésu it daa di dem ca place jullikaay ya daa di toroxlu julli fa ñaari rakka comme ni ñuy jullee it ñaan yàlla subhanahu wa taala ngiree yàlla wàccal ñu ab taw loolu it moo tax ba am na mbokk yoo xam ne ñi ngi woote partout dans le Sénégal di wax ni jullit ñi nañ génn ngiree ñu dekkalaat sunna boobee nga xam ne aka bari ci ñun ñu dund ba dee musuñu ko fekke waaye mu ne ko occasion lu mu bon bon nga fekke ko benn yoon ci sa dund looloo tax ba fii ci lycée Limodak bi nekk ci wetu stade amitié bi ci parkingu lycée bi dimanche bii di ñëw ci 10 heures ñi ngi fa fas yéenee daje ngiree ñaan yàlla subhanahu wa taala mu wàcceel ñu am ndoxam ci yërmandeem ak i ngëneelam baal ñu suñu bakkaar ci càggante gi nga xam ne ci la ñu nekkee loolee incha allah ñu ngi koy bàyyiloo xel yi fu ñu doomu aadama fu ñu mën a nekk borom bi subhanahu wa taala moom moo ñu moom mooy dogal ci ñun lu ko neex ñi ngi koy ñaan yàlla nañu yàlla jéggal ci yërëm ñu yàlla nañu yàlla may aafiya fi dunya wal axira yàlla nañu yàlla yónnee nawet bu barkeel yónnee ñu ndox mu ñuy jëriñ ca bañ ñoo lor yal na yàlla defal ñu aafiya ci suñu réew yal na yàlla boole waat suñuy xol musal ñu ci lépp loo xam ne dañuy jural fitna yal na yàlla wërsëgal ñun ñëpp la nga xam ne mooy mujj gu rafet ëllëg ba ñuy dajeeg moom yal na ñu defal àjjana muy suñu wàccuwaay allahumma rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar subhana rabbika rabbil izzati ma yasifuna wa salaamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin